ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne boo jaar fafa laa mëne dama mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yeley nu roowu mag ñoom cuuna rëy ma waa na roy ma maa ko baaxi ñii ma père combat baa ngi noonu dox ci diggante euh, Mouhamed Ndao Tyson ak Bombardier. moo euh, féete suñu càmmoñ. kan moo féete sa càmmoñ. Mouhamed Ndao moo waaw waaw. moo nekk uh-huh. ñoom ñaar dafa mel ni ku ci nekk kii pied gauche la teg. pied la teg ñoom ñaar. waaw ah, ah, bee ngi seen diggante sëñ Bas ñu dem. arbitre bi sifflé na. Hmm. ñoom ñaar ñu ngay liwaatoo. Bombardier ngi dox ci kawam. voilà. Uh-huh. taa teel fi mu woon la. waaw gis nga Bombardier fii ni mu ne garde bi mu am nii. waaw ni mu daggee taxawaay yi taxawaay taxawaay xam nga njool la. waaw poids la yem. Mm-hmm. waaye taxaw gis nga taxawaay bu baax la am. Mm-hmm. gis nga ni mu fléchir tànk yi. Mm-hmm. fléchir bu fléchir ñaar rek tànk yi day am doole. Uh-huh. léegi mu aj jàng bi ci kaw nag. Uh-huh. gis nga dafa jàng bi dox ci kawam nag. léegi loto bi loto bu baax la koo gis mu dagg taxawaay bi nii. léegi aj jàng bi ci kaw dox ci kaw waaye rek dafa bëgg a jeexal bëri bi Mhm. dafa bëgg a jeexal bëri bi mhm. waaw su ko defee nag foofu xam nga kii wala xam nga Tyson da nga tàgg bi taxaw mhm. mais comme kii ngi dox ci kawam ñu ne moom bi mu defee benn pas arrière deuxième bi day def latéral moom Tyson waaw bu la waa ji gëddee benn arrière nga arrière benn pas ñaareel bi ñetteel bi accel accel da ngay def latéral bi soit nga dem si côté droit wala nga def bi côté gauche. ak dugal si arrière de gauche. bu fekkee pied droit nga jiital nga jiital nga dugal sa à de gauche. Hmm. à de gauche bi maanaam moo koy freiné buy ñëw. Hmm. xam nga su tànnee coupé rek waa ji ko doon attaqué. day taxaw da ngay fay. waaw day taxaw attaqué si nii hmm. nga def benn pas arrière. mu gën nga def feinte latéral. ko gauche droite wala nga def gauche bu dee ba koy tàllal sa à de gauche. ak sa gàdd bi fii. tàllal sa à de gauche rek. day di freiné. nga daal ko da ngay continuer aywa. ayca ñu dem gis nga. waaw Tyson mu ngi déplacé wu góor. day dox ci kaw rek. da koo attaqué père mais day reculer rek. Euh, Tyson nag xam nga attaque bi xam moom laa wax léegi. waaw attaque bi xam nga fii moom waru woon arrière. bi mu defee benn pas ñaareelu pas day tàllal de gauche am. léegi coupé bi da ko war a uh-huh. a tàllal arrêt. bu ko taxaw tàllalee rek Bombardier dina taxaw. dégg ah jotam. bu hmm. coupé waaw. soit mu taala ko waaye fekk waaye ñu delloo ko. Hmm. wala mooy mu delloo ko mu jib wala njëkkante ca suuf. ñu hmm. nga nag taay mi dafa am a wax ci bëri a fay hmm. bu doon njool mooy riñaan. nga xam ne arab yi sóole si boo dee sigee mu daw fa rajo. defe tan doo doo noonu la bëri ba bëri làmb. benn defet nga koy gisal wala doo ko sa gis. kii mënoon na loolu. ay ca ñu dem waaw bii da gis nga dox na Bombardier daw na sol ko. dal na sol xam nga mu daal koy dugg sol. Tyson da koo bar xam nga mu daal ah. a sa loxo ma sa dugg nii sa bokkataan yi. Mm-hmm. xool moo tax gis fii. Mm-hmm. dama ñu ko solee. voilà. mu ngi noonu xam nga ko di xool tànk nga tànk bi mu mënee. waaw ko. bu laalee loxoom ba ci biir. waaw mooy teg tànkam noonu mooy kale cuisse bi wala waa ji tëgg mboot wala mu laaj waa mu effacé. Mhm. bés boobu ba ca kaw. daay mhm. booy bu ñu demoon géej ma woon la. ñu dem léegi géej ñu fay. Mhm. bu jàngee ci laale woon bu mu waxoon ni mu a def. kii na la fii bi mu ko bi rek dafa waroon tibb tànk bi. fii ne kan moo waroon tibb tànk bi foofu boobu demoon def. Hmm. moo rek la fi mën def. kan moo waroon tibb. waaw kii bi mu ko laalee nii. Ah, bi ma ko duggee ci bopp daal da koy dégg. daal tibb tànk bi. Bombardier moo waroon tibb tànk bi. de de Tyson. loxo gisoo loxo fi mu ko dugal. waaw gis naa loxo bi léegi bokk tànk bi daw tibb ko. tibb ca suuf pour mën koo tegal siège. mooy ah. mooy sukkar bi. moom la olof yi moom la tubaab yi yéen xale yi dañuy wax sukkar. sukkar tegal siège tegal siège. olof sukkar bi sukkar bi. da koy hmm. ba mu jóg mu tibb bi. sukkar bi ko kale ko tànk bi sukkar bi. sukkar bi ko foofu nag bu ko defee kii day am mboot. bombardier. waaw day am mboot. Hmm. mais mboot tam su ci kii su ko ci kii bàyyee xel. su ko hmm. bootee effacé tànk bi rek. remplacé ko tànkam daal koy calmer ko. wala mu mboq ba ca mu tëdd. yooyu yëpp ay affaire yoo wax mënu koo génne. mais buñ toogoon kay wala ñu toog ci benn tàpp ci laa lay war nañ koy defee. ci yegg incha waaw fii sol na ko puus ko. waaw xam nga xam hmm. na si boobu xaw ma boobu noonu. waaw delluwaatal tuuti rek. waaw tuuti delluwaatal voilà taxawal foofu. waaw bas taxawal. waaw bi mu ko yee. waaw dafa sigi. waaw ah. mais tam gis nga Bombardier bi. waaw ah. loxo bi mën na. père loolu laa doon bëgg a wax. père yaay laa doon. ah yow père kii yow di yaay laa. gis nga loxo bi. <laughs> dafa ci ci ngeen. gis nga boobu lay dugal catu baaraam ba lay dugal. ci ngeen waaw dugal ci ngeen. xëccoo kaasan ci ngeen. waaw bu ko téyee ngeen bëri. Mhm. moom it day day day day day daal tegal seen bi. waaw day sukkal bi. waaw day tegal bu ko parce que bu ko téyee ngeen. Ah. day daal di wàccaat ràcc tànk mu ci ginnaaw. Mhm. parce que taar boobu ko laajtee. Hmm. léegi pied gauche wala ci kanam rek droite ba léegi laaj ci ba baax. waaw fekk téeri ngembam bu roccee gauche am bële fu mu ko dóor hmm. que ki nga loxo loxo droite droite hmm. loxo droite am bële bu xasee téeri ngembam yi. droite bi mën na ko dóor ba gaañ ko. parce que téeri ci ngembam bi laaj ci ba mu taxaw rek mu roccee rek loxoom. dóor amoon na la waaye nga fii waaye man kii su dee ndaanaan bëri day bañ nii waaw loxo bi warul dugg ci ngeen la ci moom daf ko war a bañ mhm. léegi fii xamam wala randale tànkam wala loxom bi mu fël wala moom bi mu solee bi ëñ amoon na hyperkine mhm. bëri doon la amoon na hyperkine mhm. waaye kii mënu koo jot parce que kii dafa génne bopp bi tiim ko dafa génne bopp ci ginnaaw bi day jafe waaw kon fii bëri rek moo fi war a am ay ci ñu dem ñu dem mu def deux pas en arrière mu def un deux waaw deux pas en arrière waaw parce que bi mu ko yee da ko daw yéeg ko booba dinaa la su daw. Ah. daal di génn. Ah. da booba di génn gis nga. Ah. ñu dem. Bombardier teel foofu père Bombardier dafa mel ni. waaw euh, fu Tyson bëggoon ci moom arrangé wu ko. la ngay wax naan mbër bu la duggee da ngaa war a mën daw pour génn. waaw Bombardier dafa mel ni daa daw pour génn. fi ko waaw génn parce que li ko Tyson kooku la ko moom fa da sut. Mhm. wala sunante bi bàyyiwul waaye moo xaw su tuuti mm-hmm. bi mu ko ëññee bu remplacé ko ci suuf moom day bañ mu Tyson féete ko ci suuf mm-hmm. parce que Tyson bu ko féetee ci suuf danger ci moom mm-hmm. danger ci moom moo tax mu bañ loolu moo tax bi mu ko ëññee rasu ko daw génn mu dem génn ñu dem rasu na waaw rasu na daal di génn uh-huh. ñu continuer waaw jàppante fii voilà Bombardier sëq am ngemb gis nga am nañ ngemb gis nga ba tey am na ngemb gis nga ba tey Bombardier ba tey uh-huh. mais gis nga ba tey Tyson fii fii gis nga ni mu loxo fi mu duggee nii uh-huh. mais taxawaay bii rek ko xal taxawaay bii wala gis nga boo gisee boo ko dégg tànkam benn baa ngi nii kii tànk tànkam benn baa ngi nii. mais tey ni mu ëmbee nii ak ñaari loxoom. di ni mu duggee. ak loxo ba dafa doon takk ndig li. Mm-hmm. waaw fi ne tey loxoom bii nekk ci biir mboq bi. Mm-hmm. parce que kii boo ma boo ma dee kii boo ma dee. Mm-hmm. war na loxo Tyson bi dugg ci mboq daal bi. xam nga xam nga loxo Tyson bi. xam nga moo féete biir loxo boobu de moo nekk ni ci biti du gis nga loolu léegi nag lii boobu de ko la bax ñu loxo bi roof loxoom biir su ko defee mën naa daf tànk bi daw yëg ko day daf tànk bi daw yëg ko day tëdd wala bu ko dee rëcc loolu mën na fa am mu forcé ko moom Tyson forcé forcé bi mu takk dafa war a takk njaboot rek di teg daal taxaw taxawaay bu baax parce action ba nga koy def dégg day fekk nga taxaw action soo koy def te Euh, am nekkatoo ci assurance. Mm-hmm. waaw da gaaw daal. Mm-hmm. parce que sa taxawaay moo baaxul. taxawaay bi mu baaxul. loolu yëpp teer day yomb. waaw mm-hmm. ah, te gis nga nii. te ni mu te ni mu takkee kii nii mu takkee mbombo de mais normalement loxo ba la gisuma a ah. takk ndigg li. daal ba mu nii mais loolu takk def nii. boo ko defee rek da lay mbor. ah boo takkee si ñaar def nii amatoo waaw. ayca fii nag ba Bombardier rasul rek tegu moo nekk gis nga fi loolu lay gis nga Bombardier ah. téye na la waroon a war a gis nga fii nag la bëri am ngeen ko jëriñ. Mhm. gis nga taay seen loxo bi mu téye fii ci naq bi la ko waroon da bàyyi ngeen téye ko ci naq bi nag ngeen mu naq bi daal di puus mel bi mu génn mais tànk bi day dem ginnaaw mu lu wax bi wala mu war a lu ne am na fi lu ne mais fii nag pour nga xam ne foo ko doon bëri kat Mhm. fii li ma fi gis yaatu na. Mhm. mais foog nga doon daanaka bëri kat. Mhm. waaw maa la wax ni fii kay moom. foog nga doon daanaka bëri kat. kon fii fii maanaam xam-xam bu màcc moo la ciy mën a génn. moo la ciy mën a génn waaw. ayca ñu def ni mu ko takkee nii. tey eh, boo ma déggoo léegi rek moo lay préparé fii nii. ni mu ko forcé ba waaye mu tëgg ko mboot rek. fii nag léegi xool. xam nga boobu li moo nekk nii. waaw ya Tyson yaramam moom féete kaw. te man damay wax ni gis nga bëri. Hmm. ki yaramam féete ci ko ci kaw toujours moo daan man loolaa wax. waaw ah. mais nag ñoom seen level bopp ah, a kawe. comme boobu moo gën a kawe bu laalee suuf suuf. wax. Hmm. mais jiili. Hmm. ak yéen ñiy seetaan. ma wax leen lenn. mais bopp. mën naa ne ci kaw jëkk laa suuf mais fekk na mais yàlla ki nga am bu fekk moom fan la ne. mu ngi ci sa biir. ah moom bu nekkee sa intérieur. Hmm. doom na ñaareel ba tëj na boobu mu ci biir sa biir yaa bomb ba hmm. jël ko sa bopp teg suuf. Hmm. ah mais yow nan la nan la ñu daal di. règlement wu lu jar seet ba ma ko waxee Alioune Sarr ci entraînement ci ci ISAF euh, ISAF fële ci euh, fii nu mu tëdd Iba Mar. dama ne bàyyi ma wan leen loo xam ne nii lii ngeen sa bopp loolu daanu nga. mais sa bopp mën naa tegu si te fekk daanu woo. fekk daanu woo. ça dépend ci ki ngay fan la nekk. Mhm. fi ngay nekk fi ki fan la nekk tey jii xam nga fii ba Tyson boppam tegu na. Mhm. mais boppam moo def mu nekk. ngi ci biir bopp Tyson ci suuf. waaw mu nga sa suuf. Mhm. kay bu ki jëlee kuy di am. ki ki kaw ki yaram fu ci kaw moom moom moo la jox jox bu fekkee kay taxaw na. ay ca ñu dem ñu xool fi combat bi di mujj. waaw. déclenché na ko parce que bombardier yi dafa euh, delluwaatal tuuti sëñ Bas delluwaatal ginnaaw tuut voilà dellul dellul waaw dellul waaw fee père fii avant ñuy dem ñu ci bari dañ naan ci règlement bi dañ ne ki ki déclenché euh, action bi kooku moom moom action bi ba fi muy mujj ñoom ñaar euh, action bi comme yow yaa ko déclenché ki boppam jiitu moom moo moo daanu ki ki déclenché action bi moom moo am faveur ci làmb ji mais yow toujours mën ngaa déclenché action sa doo ci ñaata nit ñoo fi doon mu war mu war nit du jeex. ñaata nit doon di doon song si. doon mu war far toog. Mm-hmm. ñaata doon di doon teq far ñu contre la nga toog. Mm-hmm. dégg loolu du ak loolu du loolu du lay. Mm-hmm. ki njëkk a action bi daal dégg nga normalement lu mën a wujjee moom moom def action bi moo lay jox ndam déedéet. déedéet loolu règlement bu yàqu la. règlement bëri xam nga bëri daal ci wàllu na jëriñ. bu leen fàtte bëri doon Sénégal rek ko am. wax ma ba réew bu koy def. gisuma ko. amul benn réew bu koy def ci monde bi. Mhm. suñu bëree bopp la suñu aare bopp la. Mhm. kon nag mënuñoo jël di jël seen karaté ba di jël seen boxe ba di jël seen ay ay di jël seen def ci suñu bëri. Mhm. loolu lu gën a yàq làmb la. li gën a yàq làmb la parce que combat bu rëy bu toll nii combat ñaari match dañu toll nii wóor bi gàng moo doon yoon. wóor bi gàng mu leer nañ amul kii dafa am deux points amul kii am trois points. amul loolu lu gën a rey làmb làmb ji li ko gën a dee. Hmm. ñu gënoon a bëgg làmb bëggatuñu làmb dañ dul gis dara parce que fay say million ñu fay la ay million tey ko hmm. bi gàng am na fi combat yoo xam ne amul xaaral arbitre amul xaaral euh, ñu xool télévision am na ko ah. laawoon. waaw ñu ci doon léegi ñaata combat la. du jeex du jeex. Uh-huh. tey combat bu ñu fay ay mbër ay xaalis. Hmm. fay leen koppar yu wax tal fay leen ay millions làmb ji dafa war a leer nañ. waaye ñun nag suñu règlement bopp bu ñu CNG bi yàgg ñu nekk na fi mais teguñu fi euh, làmb léegi bu ñu bu nappal seen bopp. Hmm. dañuy dem woon biir hmm. waaye def na canapé tànk wala dafa tegu la bii dafa tegu ba la njëkk bii jóg bee tegu dégg nga ak ñoom ñaar kat dañ seet ku njëkk a teg bopp xam nga fay sa biir ba pare naan nañ dem télévision nañ dem kër ga relantiwaat ko xool kan a def ñu naan teel loolu du victoire. Hmm. gis nga moo tax may action bi ñaari match la di toll nii. bi kenn nga foo am. ñu dem ci action bi. waaw moom déclenché la bon. Hmm. moo daal parce que bi mu déclenché teg ci ay ca ñu xool. ñu ah. dem ci déclenchement bi. Ah. ñu dem ah. ñu dem. waaw gis nga père xam nga fii bi ñuy dem. waaw Tyson daanaka mun naa ne loxo moo jiitu. waaw loxo ba nañ dem nañ dem sëñ Bas ay ca père ñu dem. ñu xool comme waaw waaw ñaar ku nekk indi na nañ dem ñu xool yi. ñu dem nga Tyson mu waaw xam nga xam nga fii. angle angle bi mu ñu wan. plan bi lim ñu wan mooy bopp Tyson. gis nañ ko muy tegu bopp Bombardier ba tey gisuñu ko ñun. looloo taxoon nag gis nga làmb ci boppam. Mhm. xam nga làmb ci boppam. fii lenn rek lañu formé la ñu bëriwaat. Tyson ba ñu ko woowee hmm. a bañ dafa dañoo bëriwaat. rek ne man daan naa ñu xëcc xëcc mu lànk na dem naa du yoon. Hmm. loolu rek def tegul ci yoon. Hmm. parce que quinze jours boobu tey jii. mënoon am ndam mën bas ñu dem ba ci action bi ñu dem ñu dem demal ba mu jeex mhm. demal waa père fii demal demal sëñ Bas demal fii bu fekkee site amul lan moo tax ñu arrêté combat bi parce que moment bi Bombardier mbott na Tyson mhm. euh, ba Tyson dugg dugg dugg surux ba génn Bombardier nekk ci biiru Tyson. moment bi est-ce que tey euh, bu fekkee Tyson arbitre bu attee ñaar moo mun a am. Mm-hmm. Bombardier moo daan Tyson. wala wa ilaa mu bàyyi combat bi continuer Tyson continuer action am léegi fii lan moo tax ñu arbitre atte ba pare woowaat leen ne leen kaa leen bëre. xam nga foofu nag loolu xarit bi mi yor arbitre moo la mën a leeral loolu. Mm-hmm. moom rek moo mën a wax ne tax mu atte combat. Mm-hmm. parce que moom moo fi newoon yor cible bi. li mu gis moom leen tiim ñoom ñaar mhm. moom war a aqulaay taalam mhm. ne soit kii daan wala kii daan wala kaay bëri bëri waat mhm. parce moom ci boppam bi mu leen wooye waat pour man bëri tax moo wax dem yàq daan na daan na waaw moo dafa sàq dem dégg nga moo tax ñu ko parce que ñaari mën nag bu ñu sàqee ka sàq toujours ka sàq wala ñu jox victoire mais fii bëri waat laa fi gisoon na man bu doon maa yor simne bi bëri waat laa fi gisoon parce kii teel boppam tamit kii ni mu teg boppam kële ci boppam fan la ne mu ngi ci biir intérieur mm-hmm. Mm-hmm. dama bëgg a xamal ne gis nga jili làmb lu mm-hmm. am combat yoo xam ne yi dégg li ma wax ñun buñ ci génnee suñu cosaan làmb ji yàqu na suñu cosaan làmb buñ ko ci génnee génn ci ay ay ay judo ay karaté ay ay gréco-romain ay li livre yooyu na làmb ji làmb woon du jàng rek amul daal ñaar bu ñaan dee sukk nañu bëriwaat ñaar bu bu ci bëti nit ñi nañu bëriwaat

ay ca ñu dem ba fi combat bi jeexee. waaw. demal. demal ba mu jeex. baa ngi noonu. waaw xam nga mbot baa. Hmm. et puis eh, Tyson fii. waaw bu doon daanaanu bëri kat. xasuma hmm. sax bëree ba tey. Hmm. mais tey waroon naa calculer ni. waaw kii ko tàntal na ko mbot bi ay yoon. waaw su ma mbot bi. fexeel na ko ay yoon ci biir bëri bi. waroon naa sóoraale kii fi koy jële su ma ko dawalee bu mbot ma. parce que njëkk na ko def ci première action. bi muy dugal loxoom. waaw parce que boobu ma ne na ko ay yoon du benn du mhm. kii daf may boole. Mhm. parce que yow prise ki ki nga ciy ko ko. Mhm. waaye nit boo ko wanee ne ko lii laa a def a nangu loolu nangu naa ko. waaw bu ma la wanee ne la nangam lii laa la bëgg a def. ngay mbër mooy bëri nga war ma nangam. war ma gis ko waroo ma ko def. parce que war nga ma li ma bëgg a moo tax nit soo ko bëggee li war na ko jaaxal da nga koy def loo xam ne foog ko. moo tax des fois ñu bari ci làmb naan mbër dafay am lecture. waaw lecture di jàng sa adversaire nga position lay taxawee ci làmb. parce que ba mu doon mbagg mi hmm. di dugal wet gi nga xam ne kii day préparé mboot. Hmm. te mboot loolu am na ci biir loo xam ne nii tey jii bu ñu amoon tapis naa ko wan. Hmm. su ma xamee damay mboot damay tegal mboot bi waaw. mais boo dee foofu lañ daal sax doo ko gis. kele yooyu faaw nga jox ma ko. bu bu subaa bu ma dimanche. ah lu ma la jox yow bari loo xam ne nii. Ah, yi ma doon nekk ci bii. Hmm. bu ñu demee nga laajaat ma ko. incha allahu rabi nga laajaat ma bii moom ak yeneen fi passé. Hmm. yi fi jot a passé ñu ko. Hmm. yooyu tamit nañ ko génne. waaw xanaa Bachir dina génne yooyu. moo kaagu di ngeen génne yooyu ñu toog waxtaan ci. incha allah engrais bi action bi diw bee mm. ak bi nii la mujjoon mais fii leen la ci waroon a mën a génne mm. su ko defee may leen nii la waroon def mm. bu defee nii nii la waroon def waaw te bu boobaa ñi ca bëre suñu toogoo seetaan sut bi ñu xam ne ku ca juum li nga xam ne père bi daal mi ni wax dëgg la ku ca juumul gën a yokk xam-xam ne juuma waaw jërëjëf am na solo bu baax a baax a baax dégg ngeen li nga xamante ne analyse bu per Birahim def ci euh, combat bu bu match boobu nga xamante ne combat bu neex la dox ci diggante Tyson ak Bombardier mu nekk làmb joo xamante ne ñu baree bare ci réew mi yàqamti woon nañ làmb ji xaaroon làmb ji ba loolu bokkoon na ci li indi euh, ñàkk gis Mouhamed Ndao Tyson ci làmb mm. durant trois ans ba mu dellu siwaat ci làmb gis nga jafe-jafe yi nga xamante ni jot na ko am ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom Père Birahim mm. di ko ñaanal suñu borom guddal fanam lool ànd ak wér ba bépp loo xamante ni mbëbët la boo xam ne am na ko ci làmb am na ko ci ñooñu làmb suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba mu def ko ci ni mu ko bëggee ñu ànd ceeg moom Père may gërëm bu baax a baax a baax koo xamante ni kenn la ci yow muy euh, Mouhamed Mouhamadou Falidou Diop nga xamante ni euh, ku baax la mu kilifa xamale la ñëw jàpp ci ci ci liggéey bi di sama jarbaat di sama lépp yaayam bëggoon ma tool na mm, mm, mm. yaayam dama bëggaloon boppam dëgg la dëgg la waaw ndeysaan yaayam moom xam na li may wax te bu ah. seetaane dina xam li may wax dëgg la dëgg la nekk nit ku baax Fall tamit moom mu ne naa la moom sax du rakk ci war xaati doom la ci man mm-hmm. service la boole woon waaye kooku sama doom bi mujjee maye moom laa ko bàyyee ndeysaan ndeysaan moom laa ko bàyyi moo ñëw mayis ko mm. ànd ak ñoom Seck Sakho ndeysaan ak ñoom euh, Zal Ngom xaritu benn ba na maa ngi mm. koy nuyu de passage Zal mm. ñoom ñëpp ñëw yendu si fa xar kumb lool eh, ma bëgg ngeen jàppante bu baax la incha allah mais nit ku baax la waaw nit ku baax la ku mën a solo ji nit ku maanaam ànd du intérêt rek mais ànd xel mu baax ànd xel mu baax billaay ni boo amee bis wallaahi ñëpp gestu nga am nit ñu baax loolu sam la dëgg la waaye nga am bis gis faa ñoo xam ne ñi ñee ngi la nga waas ak ñee nga demee wallaahi loolu tamit nee tax waa koñ ñu la respecté dëgg la moo tax ànd Ah. bis ngay xamee ñan nit nga am. wallaahi lu am solo la. dëgg la père ah, am na solo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax loolu lañ leen indiloon tey ci jàngat làmb di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jërëjëf père. jërëjëf kon nag. maa ngi kontaan trop. jaajëf di ñaan yàlla bu muy sunu mujj daje. amiin yaa rabbi. ndaa naan laa ñaari yoon. kon boo jaar booba laa mëne. boo jaar fafa laa mëne. damaa mën ci bii boor mën ca bee boor mën ci yi boor ak ci yële yi boor ay Fatou Ndiaye nu rowu mag ñoom cuuna rëy ma juut waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor